fexe ba gën a ñoŋal transformation agricole ci Afrique warngal képp rawatina fii ci Sénégal jaarale ko ci ay jumtukaay ak it xarala yu yees moo tax a jug bi lépp panel mala bu Montpellier. Euh, pour waxtaan ak askan bi pour euh, waxtaan ak ñoom njëriñu mbéy ak naka la ñuy yokkee njëriñu mbéy pour utiliser euh, mekk na ay jumtukaay jumtukaay yoo xam ne dina jàppale. béykat yi ñu mun a gën a yokk li ñuy béy te gën ko yombal te jural leen njëriñ si ñoom seen njaboot ak ci askanu réew. jot nañoo fësal ab rapport buy tënk mbay mi na muy demee si lu toll si juróom ñaari réew ci Afrique yi faral di jëfandikoo ay xarale yu yees ñeel mbay mile ba noppi tek ay recommandations ngir yeneen réewu Afrique mun ci sukkandiku. rapport bi wax na ci loolu naka lañ mun a def. pour liggéey ak ñi nga xam ne ñoo amee finance pour ñu yombal finance pour ñoom ñu mun a euh, njëriñoo ci euh, jumtukaay yi nga xam ne mooy gën a dëgëral mbéyteef euh, report bi tam wax na ci naka la ñuy fexe indi ay innovation yoo xam ne dina gën a yombal mbéy pour produit yi ñu mun see génnee ay façon yi façon yoo xam ne dinañ ko mun a package denc ko ci diir bu yàgg ba pare mun koo yóbbu fu ne pour jaay ko njëriñu si gaaral ci report bi bu fekkee ne eh, topp nañ ko eh, ñu ñu ñu ñu ñu góorgóorlu si mu sax dinga gis ne mbéy dina nekk loo xam ne dafay créer lu ñuy wax wealth dafay créer dafay créer valeur dafay créer eh, alal dafay créer ay façon yi lépp acteur nag di am yaakaar ni bu ñu génnee ci bile forum seen i jafe-jafe dina saafaraw ngir ëllëgu mbay mu gën ci Sénégal tàmbali ko ak di jëfandikoo produit ñuy bay ci suuf si